dernière étape bu zone 2 bu Ndindi euh, ànd ak soxna Faat Bintu Pouy daal di def campagne bu mucc ayib jamono ji nag toll ci tëccal campagne bi ñu daal di def li nga xam ne moom moo di seen ay yu mujj daal di koy dooree fi nga xam ne moo di ca biir Ndindi comme nañu ko daan amalee ca ndorteel campagne ba quartier tey nag moom moo di quartier usine ndax foofule soxna yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk dañu liggéey ca usine gerte ya tax jamono ji nag ñu am yaakaar soxna Faat Bintu Pouy mu jàppale leen ci li nga xam ne moo di seen ay jafe bi mu ñëwee nag ki nga xam ne moom moo organisé boobu le café yi le kàddu la yëkkati waaye nag dara warulu ko rek lu bëgg lu baax ci koñ bi ak yàgg a jàpp ngeen jàpp si ñun jàppale ñu jiital ñu man nag man Ndiaye Seck sama bëgg-bëgg leen dong la muy ñi nga xam ne si ne ñoo ne sama ginnaaw ñu nekk mbooloo mu takk nekk ay soxna nekk ay boromi kër nekk ay xale yu ndaw yuy jàngi nañ leen jàppale li laay lii liñ bëgg ñu mën koo am ndax suñu maire yi sonn lool. ñu ngi ci wóoyum gerte mi ñu ngi ci segal diw gi ñu ngi ci leneen loolu lu leen ñu ngi ci te dama bëgg ngeen jàppale leen ginnaaw mu loolu wéyee nag président Macky Sall président Macky Sall man moom laay jàppale président Macky Sall laay jàppale te dama bëgg waa koñ bépp jàppale la ma ko ndax gars yi xam na ni Macky Sall moo réew mi ah fii kenn yor kuréel Macky Sall te ñun waa Touba ñun service bu Touba dañoo jóg ngir takku ngir jàppale président ndax xam nan mooy suñu noflaay waaw ku la jox ndekk jox la añ bu la jógee reer war ngaa sant yàlla xam la ko jox président bilan bu ma ko am fanaan waaye nag maa ngi sant ki nga xam ne si ne mooy docteur Aliou Sylla docteur moo ngi jàppale waa zone bi sampal na fi kees boo xam ne si ne mi ngi génne ci xaalisam cent quatre-vingt mille nangam def ko jigéen Touba kees googu tey jii jigéen ñi liggéey nañ ci lu toll ak 10 mois am nañ ci 4 millions de francs CFA jigéen ñaa ngi ñu toog loolu nag yow yaay puy dama lay sant leen di la ko diis yàgg délégation bi yëpp ak soxna ak docteur Sylla di leen wax ne sama jigéen ñi laa bëgg ngeen jàppale leen ma xale góor yi ngeen jàppale leen ñu liggéey am ay financement ndax ku ne xam na ne DER bi yaatu na lool ci Touba mais fii presque déposé na lépp mois mais benn génn gu ci te yëpp seen récépissé mi fi teg kon damaa bëgg ngeen jàppale ñëpp nag mu mel ni ki kàddoom yooyu lay dugalu ko ci nopp tëx ginnaaw ba mu yëkkatee kàddu yi ba noppi soxna Fatou Bintou Pouye yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci nga xam ne ñoom ñoo di askan wi yeewoo foofale ca Ndindi ñu gën koo xam ca usine ngir xool naka la ñuy def gën leen a mën a suqali ci financement DER yi waaye itam euh, loolu lee mënta am mukk te falaatun ki nga xam ne moo di président Macky Sall dès le tour ngir mu mën a jàpp ci li nga xam ne moo jëm ci financement yooyu lee maa ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam maa ngi ziar soxna Sukay Mbàkke maa ngi lay ziar bu wér di la ñaanal di sàkku it ci yow ñaan suñu tànk yi ñu fi indi ñu ñaan ci barke sëriñ Touba nga ñaanal ñu ko ci sa barke maam yàlla may ñu ci ndam yow ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak wér yax sa njaboot sama mbokk soxna yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu. ñi nga xamante ne ñoom ñoo yilif seen tund bi tàmbale ko ci imam beeg chef de quartier bi suñu doom bii ñu fi indi tey sëñ Ndiaye Seck kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax a baax ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla may la nga àggali yàlla may la li ngay sonn yàlla nga dem ba gis ci sa bopp bañ cee rëccu dara ñun li ñu fi indi daanaka ñu jël kàddu wax nañ ko ba pare dañoo ñëw pour ñaan si leen. ndax dañu jub ci ay élection élection yoo xamante ne élection jiitum réew la li ngeen fi wax nag déglu nañ ko nangul nañ leen ko sonn ngeen te suñu xeex mooy jigéen dootul sonn ci biir këram suñu xeex mooy fexe ba ngeen am accès au crédit suñu fexe suñuy mbëbët mooy ngeen dem ba kenn ku ci ne la nga yéene sa biir njaboot nga def ko yàlla na leen ko yàlla defal ci barki Serigne Touba. fi nga xamante ne fa la ñu jëm muy ay échéance électorale ñu jëm ci ay ñuy laajte réew mi am ñi juróomi njiit ñoo xamante ne dañu taxaw di ko laaj kenn ci ñoom nekkoon ci kaw réew mi di président Macky Sall président Macky Sall mi nga xamante ne moom moo def couverture maladie universelle président Macky Sall mi nga xamante ne moom moo fi taxawal tey projet bi jàppale jigéen ñi muy DER président Macky Sall yooyu yëpp bu jàllee suñu autoroute bii mu ñu defal kenn xam xalaatul woon ne mun nañ koo am te moom moo ñu ko indil kon nañ ko jaajëfal nañ ko war a jaajëfale ñun suñu waa tund bii mooy le 24 incha allah ku jëlagul kartam na dem jëli ay kartam bu ñu xëyee ñu dem teel xëy dem votelu ko ñëpp ko xàmmee lii mooy fotoom carte bi beige marron la li ko sëñ Baba waxee démb. kartam euh, moom moo def bopp fas bi nga xamante ne moom da sëñ Touba waroon dem di wuyu tubaab bi loolu moom dañ ko dàkkantalee bu ngeen jëlee juróomi carte ci kaw table ba na ngeen jël benn enveloppe juróomi carte yi bu ngeen ko jëlee na ngeen jël benn carte muy carte ba carte président Macky Sall suruxal ci biir enveloppe bi bu leen ko coller bu leen neexee ngeen suruxante ko ngeen dugalante ko ci biir bu leen neexee ngeen bàyyi ko noonu delluwaat fa ba ngeen jëlee woon carte yi suruxal ko ci biir kees ba bu ko defee ngeen ñaanal ko yàlla suñu borom may ko ndam ci bés boobu au premier tour. ñeen nag yaakaar nañ ci am nañ ci yaakaar ci yéen si la lim fi def yàlla nag ko yàlla fay yàlla mi am fayam yàlla na ko yàlla fay te bàyyi ko ak yéen ba ñu nit li ñu yéene ci yéen ñu ñëwaat fi ak si fii. def ko ak yéen ci barki Serigne Touba kontaan nañ ci seen mbootaay yi bu baax a baax a baax baax kenn ku ci ne bu doon suñu sago ñu bàyyi ko pour mu waxtaan ak yéen ñun bu soobee yàlla élection yi bu weesoo man la ma yàgg wax man politique gu ma xëccoo max kenn politique man œuvre sociale laay def jigéen ñi laay jàppale. zone bi dama xam ne war nañ leen a jàppale moo tax ma ñëw ànd ak ñoom waaye man social bi yàgg naa ci balaa lii moom moo tax ma ñëw ànd ak ñoom. yéen it xam naa mosuñoo gisee tonton Sylla moom moo ma forcé ne ma sama jigéen ñi dama bëgg a dem waxtaan waxtaan ak ñoom waaye ma sama yitte dëgg mooy jigéen ñi nga xamante ne xamee guma ak ñoom wala ñi nga xamante ne àndaguñoo président Macky Sall ma dem seeti leen xool naka dañuy àndee ak moom man loolay sama liggéey maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal gisante waat ak yéen ci jàmm ñuy feete victoire président Macky Sall jërë ngeen jëf. ginnaaw ba mu jógee ci première étape boobule deuxième étape am nag moom soxna Fatou Bintou Pouye ak mbooleem responsable yi nga xam ne ñoom ñoo nga xam ne moom moo di zone xam ne moom moo di Soura foofule tam moo di seen ay jafe-jafe daal di koy becc ci kanamu soxna Fatou Bintou Pouye ngir mu indi saafara waaye tam fàttewuñu benn yoon di fësal ne zone boobule moom Macky Sall moom moo ko moom wax tamit soxna si mooy man am ma lu dul sama gox boo ma gisee ma sol sama daal tamit sama gox a tax ndaxte bu may bu may sonn tamit sama gox moo tax ndaxte jigéen ñi bëgg na noo liggéey te amuñu moyen bi ku leen jàppale leen bëgg ñu liggéey ndax liggéey rek moom lañ bëgg moo leen ñor moom daal liggéey leen bëgg ku leen ci jàppale ci mbàllum deer beeg yëpp ci leen bëgg ci leen ko jàppale ndaxte yëpp daal manqué na ci ñoom te amuñu ko ñun na ñoon ci Macky Sall ñëpp pare nan ñëpp pare nan ñëpp pare nan ci Macky ñoom ñun ñëpp pare nan pour watee Macky pour mu am premier tour wax dëgg yàlla am ñun ñëpp kontaan nan bu baax te ñoo ngi ñaante bésu familial bi tamit ñoo ngi bëgg suñu jigéen ñi tamit ñu am ci ndaxte moo leen foo xam ne góor a nga fay nekk tamit suy borom kër xañ na lu baree bari mënuñu ko waaye am na loo xam ne tamit ñoom it ñu ngi ci biir di ko di ko ci biir kër yi muy wàllu njaboot gi boo sa sañoon wax dëgg yàlla am ñu jàppale leen ci loolu ginnaaw bi ni ko soxna Faat Bintou Pouye daan defee ginnaaw bi mu yëkkati ay kàddu ba noppi génne na li nga xam ne moo di bulletin président Macky Sall waaye itam gën a ñaaxaat askan mu daal di dem teel a voté ji daal di ñibbi ci seen ay kër waaye tam wax leen ci ban anam la ñuy voté ba seen ay bulletin du nul daal di dem ci li xam ne moom moo di compte président Macky Sall Bintu waa Soudan ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jéggalu ñu ngi leen di jéggalu bu wér a wér guddi na xam nañ ne fu mu nekk ni alaaji yaa ngi leen di xaar ci biir kër ga bu ngeen demee nañ leen jottali suñu jéggal bu baax a baax a baax jaaroon fu mel nii rek moom moo tax waaye du ñàkk leen a yëg ñu ngi leen di ñaanal ci barki Serigne Touba ñu dellu si waat seeg jàmm di féete victoire président Macky Sall dellu si waat si di leen uh, andil ay financement dellu si waat fii di fi tiire ay biir Makka waa zone ci turu Alane programme suñu coordonnateur ci turu suñu président d'honneur ci turu suñu président Ahmed Fall Ndayde ci turu xale yépp ci turu suñu chargé des muy sëñ Abdou Lahad ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen xamal ne dañu ñëw pour ñaan si leen te yaakaar nañ ne li ñu fi tax a ñëw yéen ñi di ngeen ñu ko may mooy ñëw fii pour falaat le 24 février incha suñu benn mbër ci juróomi mbër yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw pour dem ci muy suñu candidat président Macky Sall président Macky Sall. yéen kenn du leen ko jàngal ñun ñi waa Touba moom moo ñu fi andil Ila Touba moom moo ñu fi andil bourse familiale moom moo ñu fi andil projet bii jàppale jigéen ñi ak xale yu góor yi muy projet DER président Macky Sall li nga xamante def na ko ci yoon bii boo jógee Touba di jëm jëm Jolof suñu autoroute mu ñu fi defal loolu rek defar ko kon gàcce ngaalaama président Macky Sall président Macky Sall yéen ñëpp xammee ngeen ko mooy kii nga xamante ne moom moo nekk ci photo bi kenn du leen ko jàngal kàttan ni ko coordonnateur Baba waxee léegi moom moo bopp fas bi nga xamante ne fas bi la nga xam ne moom la sëñ Touba waroon moom mooy kartam photo bi moo nekk ci carte bi bi juróomi dinañu andil ñun ay rëq-rëq te loolu dañ ciy bañ ceeb bi ñu leen fi wàcceel ak enveloppe bi ñun ñoo leen ko jox soxna ami yax sa mbootaay yéen a ko moom ñu bëgg ngeen ci di ci def ay mbaxal di ci waxtaanee président Macky Sall ak bilaawam keroog le 24 incha allah. lépp nii lee la soxna Faat Bintou Pouye ak waa zone de daal di tëjee li nga xam ne moom moo di seen 18eem journée mu nekk journée bu chargé dem ci ay gox-goxaan yu fasantikoo ci biir zone 2 bu Ndindi jàpp Tindoodi ak fi nga xam ne moom moo di sura laata nag ñuy wéyal li nga xam ne moo di tëjteel campagne bi.